jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag ñu ngi fii ci yaraax seet si fi xale bi nga xamante ni mooy caatu yaraax mu bëre bërki démb dimanche le 27 février 2022 fële ci arène nationale journée bi nga xamante ni Ndiaye production moo ko organisé woon mu bëre ci ak Bulldozer ñu nekkoon ñaari xale yoo xamante ni vraiment ku ci nekk yaakaaru làmb ga ku ci nekk am na tolluwaay boo xamante ne am nga ko ci làmb waral ñu seet si ko tey ngir waxtaan ak moom ci lu baree bari làmb ji gis nañ beneen xale bu feeñ ci làmb ci bëre ci respecté adversaire ci respecte bis bi naa loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëwel waxtaan bi ndam neex na de <laughs> waaw ndam neex na moom macha allah. maa lay ziar bu baax. ñu ngi leen di dolli ziar di nuyu wasaare lamb bi yëpp. Hmm. waaw di wax ni macha allah seen liggéey rafet na. Hmm. ñu ngeen jëlee lamb ji ñëpp gis nañ ko. Hmm. mais ñu ngi nu àdduna aussi tamit di ñaan yàlla jàmm sax ci àdduna rawatina suñu réew Sénégal. muy guerre bi nga xamee ne moom moo am euh, Suisse ak euh, Éclair. Mm. maanaam suñu borom sedd sotti ci ndox mu sedd guy ba ci ku nekk ñibbi say njaboot. mu sedd guy guy guy parce que guerre moom leneen la quoi. Mm-hmm. yàlla ñu ci yàlla musal ñuy ñaanal ñëpp jàmm tamit. dangaa mm. da jëmoon ci bis bu rëy sa diggante ak Bulldozer. Mm. kon combat boo xamante ni bari woon na coow. ci yaa ma laaj laajoo ma yaa ma dëkk dëkkoo ma open presse bi ku nekk wax. nga ñëw ba ci bis bi ban moment nga dugg stade ak bi nga duggee stade ñëw naa fa fekk la nela la mbaa dara méttiwu nga ne ma dara méttiwu mu nekkoon loo xamante ni loo gëm na ndax yaakaar naa nit lu mu wax lu mu gëm na la. Mhm. ban maa nga ñëw stade ak nan nga dundee stade bi keroog bi nga dugg see. waaw stade bi daal li dul fàtte mooy sedd daal bu di xam naa ne. sedd na de. trop. gis naa nga sol beneen pluie. wallaahi xal sol naa fa jege ndax sedd bi mu doon sama waaraam sax boo waroon dagg ma ko yëg. Mhm. moom dafa sedd trop trop ndox mu tàng sax génnewu la ci. Mhm. waaw. ba xam ndox tuuru ko sax génnoo ci stade moom dafa sedd loolu rek laa xam ne xaw naa ko yëg bu baax ci stade bi moom. seddaay stade bi du du du handicapé mbër mi wala ci biir làmb ji. doo ba ci digg bi nga nagam sedd day day tax sa circulation sanguine du normal day coaguler sa sang sedd moom c'est pas normal quoi ndax euh, sportif à tout moment day war di circuler. maanaam deretam di dox. Hmm. cartilage yëpp di bàyyi. Hmm. mais tant que yaa ngi toog du liw rek mën na la pénaliser. mooy waral nga def action gaañu. wala nga sànni ku am ay déboîtement wala ngay am ay déchirures yu ndaw. Hmm. parce que lu sec lu nekk rek boo ko xëccee teppee ko xaj na ci. Hmm. loolay waral sedd bi di erreur. ah moo tax mbër bu ci mën a yóbbu furno wala gaz di baxal ndox moom ak di suuru di jaar bu baax. mais baxal ndox bi dégg naa day gën yokk. waaw waaw mais mais mais mais tamit euh, xam nga tey boo seddee ñu ñu dool la ci seddaay moom day gën a métti. Hmm. bu fekkoon dañ la sotti ndox mu tàng sax xëy na tàngoor boobu mun nay forote sa yaram bi tuuti. Mhm. deret ji di dox. Mhm. mais buñ ci sottee lu sotti da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay kii de da ngay congelé de. te yéen leen wàññi sotteeku sotteeku bi ngeen di sotteeku. non mais lamb moo ko jar c'est que xam dafa métti. loo préparé ay weer. Mhm. loo préparé ay weer def ci xaalis bu nekk. tey mënoo jël biteel boo xamee ne vraiment muslaay la ndax àdduna bi jàkkaarloog yow. mun na la lii bët yeeg làmmiñ yi nga jël biteel bi di ko seetaan il faut nga tuuroo ko ak lu mu métti métti. Hmm. ndax nga mosu sa bopp ndax après làmb ngay xalaat. Hmm. xam nga làmb sax ci bés bi pour nga gérer ko yomb na. Hmm. mais après làmb ndax na yenn bët yeeg yenn cati bi la toppee da ba faaw looloo gàllankoor mbir yu bëree bëri bëri. waaw. mu loo xamante ni tey gis nañ yaag Bulldozer bi ngeen simmee nekk ci digg géew bi yéen ñaar allah ku ci nekk indi na état de forme bu bien. mën nga ma décortiquer nan ngeen bëree ci combat bi sit bi am ba première action bi sax laa bëgg bi arbitre bi sifflé nan ngeen bëree lan moo indi première action bi ci nan ngeen ko bëree. waaw ci niñ ko bëree mooy que man xam naa ne dañ ñu ko taxawal ndax caatu yaraax day ñëw. Hmm. waaw mais xam nga ñu ne la caatu yaraax day ñëw rek xaar ko du tax it man ma sax fa garab. Hmm. ndox doo wàcc yoonam. Hmm. man ku ma xam ci làmb xam ne bu arbitre sifflé dinaa la jox cër cër mooy que dinaa la déglu. Hmm. mais liggéey bu war sama diggante ak yow dinaa ñëw appliqué ko ndax du ma bàyyi mbër di ma diriger. dëgg la waral ma diriger ko dox ci kawam dóor ko ay épercule gauche droite daw door ko crochet mu séddoo ak man ma jàpp ko man sax maa ko xëcc tax ko sama kaw. Hmm. parce que moo ko taxawee sama kaw boobu dama ko bëggoon lonkal ci xabal mu wàcc ñu ànd wi ma wéeru ko. Hmm. mais dafa ci ay tànkam jël loxo yi maanaam bootu sam ginnaaw. ma def deux rotation jël sama loxo kor épaule bi. Hmm. ndax xam naa ne foofu mënu maa rëcc. Hmm. ma cherché ngemb. Hmm. mu daw wéeru ma. bi nga cherché ngemb am nga am nga ngemb. waaw laal naa ko tuuti rek. jàppoo jàpp bi nga bëgg. jàpp bi jàpp jàpp ma ko loolu may waral séddoo bi am jaaxam. mais su ma jàppoon jàpp war. top 5 la jëm parce que boobu damay rouler ba jaaxam ci kaw. loolu tax ma déclenché mbot. parce que nit boo ko déclenché mbot par force parce que tànk bi tël. il fallait tànk boobu jëm ci kaw. Mm-hmm. mais yow mi tël sa tànk mooy féete suuf tànk ko la féete kaw. Mm-hmm. mais ca mbot ma la ndax dama ko dóor mbot ma wàcc samp sama loxo. Mm-hmm. ruuj mu ñëw mu ileer suuf si. da ko bàyyi sama loos bi parce que mbotkat dëgg buy mbot day tourné loosam. bu ñu xoolee image wasaare lamb bi bokk na ci image yi gën a normal ndax yéen da ñëw ba ci kanam. filmer lamb ji bokkut ak njaax bu amee boo demee ci côté Buldozer da naan moom rek moo daanu. boo hmm. ñëwee ci ko caar caar yora da nga naan moom tamit moo jiitu. Hmm. mais boo jëlee ñaari version yi. nga ñëw ci kanam xool ñaari bopp yi di nga xam kan moo daanu. Hmm. te moom boo xoolee boppam sax moo laal suuf man sama bopp laal suuf. mais moom première action bi daf ne yow yaa jiitu ci suuf parce que yow bi ngay nee na moom bi muy ñëw. fekk na yow nga dóor sa épaule bi. mais action foo gisee mbotoo fu mu amee ci làmb njaaxoo saa yu amee. kii day daw jaar nii kii daw jaar nii. gis làmb joo xam ne njaaxoo am na ci mbëri taxaw di xoolee. parce que ku gis sa morom daanoo keneen ki tam dënam laal suuf ku ci nekk da ngay xëccoo ndam li. man sax jàppoon naa ne jeex na bu yàgg arbitre def ma jox sama victoire ma ñibbi mais man damaa nekk sportif moo tax su waatee damay ñëw ci yow sama sama combat contre deux Ziga. non action boobu sit mënoo mënoo la faa moo tax nag man nangu woote arbitre ba mu woote waatee ma d'accord. arbitre bu joxoon victoire sa adversaire na. damay def recours parce que boobaa damay def recours. Hmm. waaw bu ko joxoon victoire foofu. Hmm. loolu arbitre duñ ko def. kon ñoom ci boobu la sa adversaire ci boobu la ñu mooy. effectivement nag parce que comme gis nañu njaaxoo am na. Hmm. foog mu jéem a saldel sama victoire mooy ci. ak ñu koy dee naan ko demal demal demal demal bëri nga bëri nga léegi njaaxoo bi parce que foog ñu leeral ko moom mu jéem ci insister mais après lamb ji bañ xoolaatee image yi. adduna yëpp xam nañ ne làmb ji nii lu ñuy leeralaat rek la mën a nekk. bañ ko sifile waatee tamit moom xam na ne day ñàkk ndax xam na ne man su ma doxee ci kawam kàttan gi man maa ko góob lim doon wax naan dafa mën a bëree mënul feeñ ci man. xeex bi mënul feeñ jëmm. mais mën na bëre parce que wure ngeen ci bëre. dëgg la ndax man làmb ji sax daf ma bett gis naa ngeen wure. waaw parce que xam na moo tax. koo musaan jàpp làmb ji jeex na. merci beaucoup xam nga waaw ku ma musaan jàpp nag doo daw. mais bu fekkee dama lay dàq waaw su ma lay dàq ngay daw moom làmb ji du mën a yàgg parce que chaque jour même open presse bi nee naa leen bu fekkee dëggal na boppam làmb ji du yàgg mais mbër mooy topp muy arrière day naqaree bëril non est-ce que na fa wallaahi yow ñaari temps ngeen def ba tey benn ma sama tànk arrière ba làmb ji tàmbali na mu jeexee mais mbër mun na arrière taragalu la mais eh, stratégie xam nga <laughs> euh, xam nga tamit non non doo ko topp muy daw daan ak ay mbokam bulldozer ndaanaan la du mbër moo xam ne dama koy topp muy daw cest li ma wax rek mooy xam na ne man su ma amee ci kawam. leen mën na hmm. xew. moo tax hmm. daf may sóor ci côté boobu muy teggi tànkam di arrière. mais xeex ngeen wóoree ngeen xeex nañ ñam nga xeex nañ. jël nga jël naa ko. moom jël na. ah loolu kay damal xool ku gën a jël ko. ndax déet man yow mi dóor. Hmm. yaa gën a xam ba xam koo bi dal na wala déet. man mun naa di xool koo yaakaar dal na te dalul. jël jël naa ko. dóor mais kuy ma dóor. yooyu mënu ma ko sentir. ndax euh, man xam naa ne force de sama force de frappe moo ëpp bokkul sax parce que moom jàppoon na ne su ma dóoree dinaa yëg dara dafa maa dóor ma gën a maamu ci kawam te bañ wàccee ci suuf. kon bi mu la dóoree daa mel ni booy bee mu la dóor. coup bi dafa woyof quoi coup xale la. waaw parce que man damay man su may entraîné sax damay bàyyi ay coup dal sama kanam noonu ma a nii. du ko mbër de. non ok ay ponko ñu may dóor. coup bu am laa pataake ñu sotti ci ay tooke fu mu dal bunt feeñ. <laughs> waaw mais xam nga tey. waxal leneen mbër. xam nga tey bu fekkee ay côté laa pataake xam nga gàllaaj dafa doy waar ndax. boo pare sa moroom pare. loo def mën na bañ a feeñ. bu fekkee da nga ci bàyyi jiir nag bu fekkee mu tax ba laabutaaki bu boo neexee seere dóor. ah loolu am na solo mais daa seere ma seere. léegi ci action bi Siteu amee. Hmm. bañ jox la ci ndam. ci ban moment la ak nan nga bëri moom. bi Siteu amee bañ jox ma ci ndam. Hmm. xam naa ne action boobu du action bu may ratewaat. boobu noonu. waaw. bàyyi jiir nee naa la su ma caaxaanul samay morom ku ma jàpp làmb jeex. billaahi wallaahi wa taalaay booy bi xam na ne ba ma ko jàppee suuf li bokkul parce que li mu doon suuflee xam naa ne actuellement ni deseetul dara. ma wàccee moom topp ko di bëre moom muy rasu rek. xaw na mu sax njin moom ba ma sàmm sama ombi. ma jugaat jàpp ci sengoor yi dóor ay épercule mu siggi. ma wàcce sama bopp bi ba ma jàppee ci ñaari sengoor yi. man su ma jàppee rek action day am par parce que boo mënee bëree boo jàppee ngemb da war a bëree. boo jàppee tànk da war a bëree boo jàppee loxo da war a bëree. ci laa jàpp ci loo si faaxar ko mu uy ma carte d'appui ma delloo ko mu jaaxaan. mu jaaxaan te billaahi yaafusul mbër la ndax musuma yegg foofu ak mbër. Hmm. champion la kon nangu nga ni ndaanaan la. ndaanaan la bañu ma ko de moom bulldozer ndaanaan la mais xam nga ndaanaan sooy bëreeg ndaanaan. Hmm. man sax boo gisee li tax ma koy xaw a contesté tuuti nii. te hmm. may waxee nii. c'est parce que lañ bëgg a sama victoire moo tax. parce que bu la mbër daanee nga taxaw naan sama loxo bi moo déboîté woon ci biir làmb ji. beneen affaire la. man ba ñëwee na ma ndax dara jotuma ndax dara loo ma laaj da nga ne ma ndax dara méttiwu dara méttiwu la ndax mbër moom dafa gaaw ci. man na la je suis en bonne santé. Hmm. actuellement tout est bien. Hmm. amul lenn loo xamee ne maa ngi koy sentir sama yaram mu may sonal. lu dul sedd daal. waaw loolu nga kon tey bu ñu ñëwee moom itam nga dem laaj ko mu wax la loolu ba ci biir làmb ji mu naan noonu dóor naa ko benn épeer gi sama loxo bi debbuwaat ak yooyu noonu. Hmm. kon ñu ngi sàllale victoire nekk biir moment bi muy bëre ak yow mun ko comme yow. ni ko a dóor ko ba loxo bi debbuwaatee. Hmm. ba mu paree demee plateau toog waxu ko. daa bàyyi ba interview ñëw këram. mu xool maanaam fu mu mën a jaar fu nekk rek pour pour gajafal. Hmm. mu ne xaaral ma tooyal yëpp gajafal daal. mais ku seetaan démb làmb ñi nga xam ne caatu na bulldozer jilu bu rëy. bi nga paree dem toog sa seetaan vidéo yi c'était la première fois yaakaar naa suma ma juumul nga bëre dégg ñu naan non daan na ko daanu ko première action am na affaire. Mhm. bari yëg nga ci am ci moment boobu. am naa lu ma métti trop. ci moment boobu. waaw ndax man maa diggoon amateur yi ne leen damay samp def làmb ju neex. làmb ju su ma sañoon làmb. neex na de. Euh, waa neex na. Mhm. mais xam nga fa laa waxee. Mhm. parce que da ñëw laaj ma. chaque jour sama kàddu damay bëgg di ko firndee. daal hmm. boobu ba ngeen ma laajee dama ne làmb ci kàttanu yàlla du yàgg ay seconde ma koy daan. Hmm. te dama dox ci kawam yàggul ma daan ko. mais xam nga mbër boo xamee ne amateur yëpp nga lay xaar ne caat cette fois ci dañoo bëgg nga taxaw nga bëre mu neex. Hmm. ñu mën a caméra mu rafet. ba ngeen bëgg te loolaa def démb damaa bëre damaa bëre ak moom. mbot xew na fa. fàqat xew fa plaqué xew fa jël yu bëri feeñ fa. waaw kon tey bëri naa amateurs yi kontaan nañ man loolu kese laa ci bëggoon. kon amoo dara lu la ci métti. aw non li ma ci métti mooy booy bi li mu nekk di wax naan non c'est-à-dire patata sama loxo bi damoon na parce que jël bi sax boo xoolee maa ëpp doole. maa ëpp doole maa wax caatu yaraax mënoo ko ëpp doole loolu boo ko waxee da nax say supporter. Hmm. waaw comme làmb weesu na nag bëgguma ñuy dugg ci beneen détail ke contrat laa si xoon moom. contrat ba bu promoteur ñëwaatoon ne la dañ la bëgg a joxaat. avance barki de maa nga wax ci interview Xaadim Anta bi. Hmm. ma ne ko su bëggoon revanche. Hmm. daa waroon gorewaat mu ñaanaat ne caat na ma mayaat revanche mais dama koy mujj sax bàyyi ndax wax yi sew yi muy wax. lamb dafa garaaw de. wallaahi lazim lamb mën na xëy ëllëg mu nekk roi des arènes moom. te boobu da koy soxla. te boobaa dama koy soxla. Hmm. lamb xëy ëllëg man ma nekk roi des arènes boobaa mën na ma soxla. kon nañ waxante lu rafet xam ne bés bu nekk xew na fii. yaakaar naa mbër bëri na fi vingt combat nga am ñaari combat ñëw bëri ak moom. Hmm. wàññiwu ko dara mbër may na fi chance ba tàyyi. Hmm. diggante Bou Siteu Laurent boo xoolee Bou Siteu dix combat la def xaw ma. Hmm. Laurent benn combat. te pourtant daan ko. dëgg la waaw mais xëy na làmb tey moom budul man mën na maat adversaire bu ma gën. wallaahi la làmb ndax da nga gis benn grand bu am yéene rek ñëw may la chance bëri ak yow. na wala amul. am waaw kon tey bu ñu waxantee lu bu ñu xasante maanaam mënul ñàkk nag ñu jël euh, avance su jàmbur taxaw ci interview yi di xasante parce que xasu gor la. du mm-hmm. xas boo xamee ne xasu mbañan la. parce que adversaire la. Mm-hmm. kon il faut ñu neexal làmb ji ba bés ba ñu wane suñu li tax promoteur bi fay la li tax promoteur bi mm-hmm. mais xam nga bëgg moom moom moom moom dama moom dafa waxoon man damaa jàppoon ne nag sportif la. parce que souvent boo koy dégg ci communication da nga naan kii sportif la. mais euh, mbër mënoo koo xam tant que amul défaite. Hmm. gis nga mbër bi amay defet lu mos a nekk ci moom day feeñ ranking bu mos a jàpp la koy génnee waaw. Hmm. loolu daal laa koy denk beneen yoon bu amee combat yàlla suñu borom defal ko jàmm. daan nga Bulldozer fan nga jëm. waaw daan Bulldozer nag taxul gis nga promoteur yi. billaahi man mbër bu ne ma ci ku ñëw baax na rek sama xol bi jeex te yow xam nga ni am na ku ne sa xol. bul wax kenn bul wax ku ñëw baax na man. limal ma man du ma mbër muy wax baax na de. limal ma ñett. ñett yi daal. Ah. bu dee adversaire potentiel actuellement nii promoteur bu ko tëgg mu neex. Hmm. sama diggante ak Diène Kaïré. adver ñaanu ma saas de adversaire potentiel laa oh, wax. Diène Kaïré du sa morom. Diène Kaïré moo du antal la mujjee daan. ba ci lan. non dépassé na la ci lamb Diène Kaïré a booy Kaïré. waaye yow tamit sëñ bi <laughs> mag mañik. <laughs> waaye waxal ne leen waaye. Diène moom waxal ne Diène Kaïré nee naa la ren bu ma jëlul du am combat. foo teg loolu. moo daan tamit bu ñëwee. bëgg Moussa Ndoye nga naan yow na la jël. waaye mais tamit jën kay da la la lay doy. Moussa Ndoye bu jëlee jën jeera ma teg sama lamb ma teg sama ngeen mu toog. ah déet lamb la de ñun yabuñu. Moussa Ndoye jën moom moo la gën a xam ne yabul waaye raax. te ñun ñu ne ci am tamit yabuñu. année balance dix ans sax moo ñu ko gënal. moo leen gënal jën kay. actuellement de bu dee Moussa Ndoye Moussa moo neex wala Moussa Ndoye guy gi wala Moussa Ndoye Siteu sax. Moussa Ndoye du bëre ñoom. waaw ñooñu foofu la neexee. parce que loolu adversaire potentiel lañ. baax na léegi boo xoolee caatu mooy lamb ji. ak ah, kan caatu yaraax Moodu ba tey lamb la tamit aussi. Moodu Anta dañ ko daan. <laughs> bu booy bi bañee mu bëri mën dañ ko. waaye ndaw leex waaye. caatu yaraax jili su ma neexoon di ñoddi su ma neexoon di ñoddi. ay jéen kayre. waaw xam nga man ay Moodu Anta ay pogal la ngay laaj de. waaw déglu ma rek. ah waaw. lamb waxul dëgg. ah lu tax loolu. mais bu lamb waxoon dëgg grand yi duñ ñëw di bëre petit frère yi. yan grand ñoo bëre petit frère. waaw xam nga tey su ma su ma. grand contre moom am na ci làmb. moo tax la grand contre petit par force day nekk ci làmb ji bu dee mag jën kër du grand contre petit ko laaj waaw mais xam nga mooy sa grand laaj mooy sa grand déggoo la bu nangu naa <laughs> mooy sama grand. Ah. ndax dafa maa waaw nangu naa. Ah, boo adda. moo doon tamit làmb ji neex la ku ma jox avance man daal jëli xamal naa benn affaire. ak kan ñun nekkuñu fi di tànk waa taxal ma wax la rek. ñun nekkuñu Euh. bu ñu jàppee ne ñun ndoxu géej lañuy tànk ak dem ci mbalit mee di buuju dem ci làmb ji ñoo ngi nax seen bopp de. Hmm. ñun làmb dëggantaan la ñuy def kafuñu foowuñu réewuñu. yow da ngay làmb ni. billaahi wallaahi wataalaahi làmb lim ñu jaral am na grand frère yu jaralul ci làmb. Euh, gis nga booy dañoo xamul rek ñu ngi dox loo xam ne mag ñi sax duñ ko dox parce que làmb ji fi mu leen di yegg moo tax sama lamb man li ma ci financé kenn xamul nu mu toll fan si club bi li ci sonn di ci génnee seen alal di ko ci def kenn xamul nu mu toll li ci def matul cinq cent mille gis naa la ay millions laa ci def non bàyyi li ngay bulldozer combat man lamb dafa ma jaral ma dem banque du ma xaar aide de dem def prêt jël lépp xamu ko ci lamb ji te pourtant loolu man li ma ci def promoteur bi fayu ma xaaj bi à peu près ñaata millions à peu def naa ci ay trois millions et quelques <laughs> barki Seydina Mohamed. waaye mbëri à peu près à peu man sama wàllu bogaas bopp de. Hmm. def naa ci ay trois millions et quelques waxtu maag fan si club bi li nga xam ne def guñ ko ci. mais yéen kañ ngeen am xaalis. combat bi waaw mais combat buñ la fay. trois millions wala deux millions wala un million cinq cent nga def ci trois millions. loolu waaw parce que xam na moo tax. man maa bëgg nekk avenir u demee. xëy na foog ma sacrifice man. génne loo xamee ne peut-être suñu borom daf may suturaal may. génn dem seen doole bi amul njëriñ. waaw ndax ndax ndax waaw wuy ma waaw wóolu sa bopp. ba pare contact def lépp dem lamb ja def ci 3 millions ci mystique. waaw oh, kon daal mbër yi amuñu. waaw da may déglu ma expliqué la. pourtant ñu ngi jël yenn mbër yi di leen fay ay somme yu am doole te ñun lu ñu dugal ci stade bi ñoom duñ ko dugal ci stade bi. Zos ah, la mën lan la mën a dugal ci stade bi man lu mën a dugal ci <laughs> xam nga tey Zos mënul dugal ci stade bi loo xam ne man du ma dugal ci stade bi. Zos benn kaart sax mënu ko lii Zos 2008. waaw yow sëñ bi Zos 2022. non Zos moom oh, garaaw boo fekk. Zos ku bëgg làmb ci xale yi boo la yëngal. non Zos ma ko may chance xanaa mu ñëw ci yow saraxu wala wala mu fay ma pour ma bëri. non man man ma <coughs> yaa fi tudd Zos de. yaa fi booy da ngaa yaakaar Zos dooy leeral. Zos benn kaaw lii sa gisee lii sax daan non booy dañ ma yëpp. booy Zos xelam xalaat na muy jël caatu yor moom loolu waa parcelle sax duñ ko ci bàyyi. yow sa xel daan na ci Zoss. non man damaa xam ne du parce que risque la ci moom parce que su ma ko moo ko desee. non Zoss mënoo ko dóor booy. barki Seydina Mohamed booy xalaatu ko. Zoss du ko man Zoss soxla ma Zoss parce que xam naa ne moom doful xale bu ne ci yoon tamit doo ko jéem a nekk fii di dof dof lu bay naan nga koy jël mu la escanté doful sax. léegi limal nga ma ñaari mbër. waaw teel bi kaal la. <coughs> nee naa la ku dul jën kay rek mu doon ànd ak bëri ay saa yi Malick Niang bu ñëwee ñu bëre. Ah, am naa lu ma métti. waa léegi lan nga bëgg yow. <coughs> gars yi dañ ne. waaw sa combat yak Ada Fass. xam nga man nee naa la Ada Fass champion la. gars yi ñoo ne. waa dégg la. moo bëre spécial bi. waaw nga bëre grand Ada Fass champion la daan na. waaw ah. yéeg na ci kaw Ada Fass champion la. yaa mhm. ma ma ma ma ma du ma dugal final. du ma du ma du ma final ba pare. di ko coow demi final. man actuellement li nekk sama karam laay xool. Ada Fass bu promoteur buggee doo bëri moom. waaw xam nga tey déggoo li ma la wax de man actuellement ni damaa sonn ci samay morom damay ñaan chance moytu ma benn boy chance damay ñaan chance bëri. bëri yàlla na ma ma toog année balance de billaahi. Ada Fass bëri woon moom. du ma la wax ne Ada Fass du ma bëri moom Ada Fass champion la. sa combat bii di ñëw adversaire du doon Ada Fass. non mënu ma gëm ne mën na doon Ada Fass de. ah ko gëm. gëw ma ko parce que fi ma teg promoteur dañuy naxee nag. ku la ci hmm. woo nax la xam nga ay nant lañ ñoom. dañ lay <laughs> nax di la baab di la baab di la baab dañuy liggéey promoteur dañuy liggéey parce que mais ñoom lu jaay seen làmb lañ bëgg. Hmm. lu jaay seen làmb lañ bëgg. parce que man aussi tamit bëgguma luy indi violence ci làmb. Hmm. chaque jour rek mbër waa des arènes dama bëgg ñu naan Thiatou Yarakh mbër bu fair play la. waaw. wane nga ko parce que bi nga daaneel sa adversaire gis naa nga daw akolaat ko. vraiment di wax ak moom. dama man dama dama dama dama dama fair dama fair parce que boo xoolee su ma su ma suma suma su ma waa Yaraax ba ñëwee. Hmm. fi ñu toogoon mooy fi fan sa club Ada Fass yi toogoon quoi. mais après ma gis ñu doon def coow foofu noonu ma ñëw ba ci ñoom ne leen yéen ñëpp dem leen ci kaw. kon yow yaa yëgal say supporter billaahi teguñ ci baat ñoom ñëpp dañoo ci kaw. gendarme yi ma ma yombale leen seen liggéey CNG ma yombale leen seen liggéey ñun ci fair play ñu dox. xëy ne bu nekkoon yeneen mbër mën nañ nekk foofu di siisu ak di xeex di dam ay sees di sànni. Hmm. te yooyu man doxuma ci luy defar làmb rek ci laay dox. te ñaanuma yàlla tamit nekk ci làmb rek. ëllëg ñaan naa yàlla nekk maanaam euh, bokk ci ñi nga xamee ne partenaires yi nga xam ne ñooy dimbali làmb. Hmm. Ah. loolu tamit am na solo. Hmm. maa lay jaajëfal bu baax xam naa li duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin waaw. ñu ngi leen di gërëm bu baax vraiment aussi tamit di wax ne yéen aussi kenn amul seen fay. mais li ngeen di def moom yombul ndax mbër du ko def mbër su paree ci làmbam pare na ci ba ma paree ma la bàyyi jëli félicitation. Mhm. ndax déplacé nga ay yoonu yoon parce que làmb ji def nañ ci bii mooy quatrième interview bi. Mhm. te amoo ci ñaar dërëm. Mhm. kon nañ leen bàyyi xel bu baax ndax promoteur yi am am nañ ko pare. ñun nag lu ñu am. war nañ ko sédd ak yéen. ndax yéen a jaay suñu kaset. <laughs> ay dóor la rek. waaw non du ay marto sax. suñu yéenee euh, romb na fii. ndax ñu ne yéen ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. man interview musul ñëw. Mhm. ba ma la ci mbedd damay da nga ñëw sax ma ne la kaay suñu biir néeg sama mhm. néeg man ma nekk ci combat ba ñu la suba la. boo ñëwee da ngay toog suñu biir néeg ñu def ko. parce que xam na nag euh, xanaa may ñaaxaat rek. reportage yi. reporters yi nga xam ne ñooy dafa doy waar. chute bu amee rek. bis boo joxee kenn verdict rek yow. Mm-hmm. yow mën nga indi sa bopp conséquence boo xamul ndax supporters yi mën na laa mere. Mm-hmm. mbër mi mën na la cee mere. Mm-hmm. ñeneen ak ñeneen mën nga te te te ka ngay faral joxu la fukki dërëm. mais boo nee ah am na lu xew. am na lu xew boobu boo ko waxee. arbitre mooy motali. boo ne ah arbitre li la wax kon la ci des nañ ko motali. lu xew nag boo bu arbitre yëkkatee loxo. nga ne diw moom la yàlla jox ndam. Mm-hmm. ndax victoire fa nga koy uti ji dafa métti ngay ut ngay xëy quatre heures du matin cinq heures du matin di entraîner. Mm-hmm. dafa métti trop bàyyi ji ñuy ñuy reporter tamit seen xalaat lañu war xalaat bi mooy est-ce que mais xam nga am na mais communication ñu ni xam nañ ko. am na nooy fare bu mu ëpp rek dañ naan euh, kii daa far de trop. daa daa far trop gars yi dañoo far gars yi de. <laughs> dimension yi ñoo yemul rek. dimension yi yemul. Ah. mais aussi tamit làmb dafa doy waar. cest à des fois di nga gis action nga daw ne diw daan te alors que sax action boobu amul. waaw mais nekk da ngay xam ni mais diw bu daanee. Mhm. day fekk mu nekk jël bu leer nañ. nga ne ah lii de amul benn werante yow ba ngay reporté. Mhm. da nga ne ah séddoo nañ jëli bi. arbitre woote waat nañ jaaxla ma daanaat ko jëli bu leer nañ. yeneen si internet yi waxaat loolu comme ni nga ko waxee nii te pourtant yéen ñaar dendu leen ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi sa côté di reporté yaa ngi dégg. Mhm. mais moom laa lay wax man ne la làmb bu ci njaaxoo amee. yow image bi féetee sa côté image boobu nga mën a gis mais bu fekkee professionnel nga wala yor nga ay caméra wala ay drone xëy na bu ñu wëree stade bi dinañ gis lu leer nañu parce que làmb dafa métti aussi tamit. am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi gërëm ñëpp di leen sant vraiment di fan sant ñi nga xam ne soppe caatu yaraax. Mm. képp kuy bëggee caatu yaraax maa ngi lay bëggee di yéen a jàmm Sénégal di yéen a jàmm àdduna di wax ne geer bi yàlla na seet ak jàmm ñun bokkuñ ci dañ leen di ñaanal rek wax dëgg fa yàlla bu ñu kenn yóbbu nag. Hmm. waaw comme ni ko Sarko kii ni ko Macron waxee. Hmm. waaw na moom buy dem na dem te bàyyi Macky mu toog. Hmm. waaw ndax ñun moom ambiance ñu xam xëy xëy ci ah, guerre. waaw xëy ci guerre voilà te dégg naa euh, mbëri dañoo war a dem ndax ku mat un mètre soixante-dix lañ wax te yàlla dafa dogal man quatre-vingts centimètres la <laughs> waaw kon sant yàlla maa ngi yàlla baax foofu moom wax dëgg fa yàlla. waaw alhamdulilah rabbi alamin <laughs> jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew lamb jërëjëf jëf